Saint-Louis du Sénégal mu nekk dëkk bu làq taarix bu baax waaye itamit mu am lu am solo lu nekk ci dëkk bi lee sa touche personnelle Saint-Louis nekk ville touristique waaye itamit nekk dëkk boo xam ne ku ne dafay bëgg ñëw umpateeku lan moo nekk file équipe bu leeral la ci émission bii di xam sa réew dugg ci biir koñ yi gox goxaat yi tamit di leen woon yoonu Saint-Louis yi koñ bu nekk na mu tudd waaye tamit toog ak yenn koñ yu gën a fës ci Saint-Louis la ngir fësal ko yéen téléspectateur ngeen mën koo jariñoo ba ku nekk fi mu mën a ne mu xam cosaanam dëkk fan la daal di jógee ci balaat gile ñu ànd ceeg Adama kan Diallo di conseil municipal waaye tamit nekki tamit président du conseil communal de la jeunesse bu Saint-Louis. tudd Adama Kane Diallo euh, nekk doomu Ndar. côté papa ak sama côté yaay parce que tey suma côté papa euh, Abikan Diallo mooy papaam nekkoon na fi maire euh, dëkkoon bayal ba tey émission bi ngeen ñëw def si ndar ànd si ak man muy xam sa réew maa ngi koy rafetlu hmm. euh, initiative bu rafet la initiative bu am solo def ngeen ko fi ngeen ko war defee muy Saint-Louis ànd si ak man nii hmm. Eh, di Adama Kane Diallo nekk conseil municipal eh, nekk tamit eh, conseil communal de la jeunesse jiite ko. dañuy bàyyeekoo fii si nord si xali rue Khalifa Babacar si dem Gendar dem seetu magum Gendar waaleykum asalaam wa rahmatullah li mu lay mën a wax ci guet moo di Guet-Ndar quartier bu bokk ci ville bu nuy wax Saint-Louis la Saint-Louis bokk ci Sénégal guet yàlla dogal mu féete ci langue de barbarie si si si Saint-Louis ndax si Saint-Louis langue de barbarie moo ko composé île bi ak soor Soor nag am na différentes sous-quartiers Soor nord Soor sud si biir Soor mën nga ci génne quartier yu cité quartier yu bare mais Guet-Ndar am na ay sous-quartiers yu fi nekk ñu koy wax Looda Pondu Xoole ak Dak Guet-Ndar am na deux écoles françaises yu fi nekkoon am na école coranique Guet-Ndar seen métier principal moo di pêche bien que yaay a beaucoup de cadres beaucoup d'intellectuels yoo xam ne ngi fii on a même eu des généraux yoo xam ni récemment am na koo xam ne bi mu demee retraite yàggul sax mën nañ ci citer beaucoup de personnes généraux yoo xam ne c'est des habitants de Guet-Ndar des Guet-Ndariens pur sang man maay Omar Ndiaye Omar Ndiaye ñu di ko wax Omar Awa Diagne dëkk fii ci dëkk bi nag juddoo fi ay eh, màgg fi xamit lu bare ci dëkk bi ci ay xarbaax yu baax yu fi nekk xarbaax yi ma lay jëkkeel mooy fii ñu toog nii tey Serigne Touba dafa wax ni képp ku fi ñëw bu aks bi boo daan danga da nga simbi sa dàll ndax fii béréb bu àjjana kooku musaa Serigne Touba ndar rek la ko wax <laughs> alaaji alaaji alaaji Malick kasaalika fii ci waalo bi mu ñëwee seet sa maam sa jamonoy peste ba ñu tubaab bi ñëw ni gendar ñàkku leen gendar ñi bañ ñu duñu ñàkk mu ni bu dimanche danaa taal dëkk bi alaaji Malick dégg ñëw ndar bi mu ñëwee kër maamu kii la dal sama alaaji maawa seen bi mu ñëwee message bi mu jëkk def mu jàll mooy alaaji Malick dafa ñëw rek toog nuyu sama maam alaaji maawa tàllal loxoom tubaab bi ñàkk ka ñëpp ñàkk commandant bi loolu di ka lool mun lu taxam en tant que man sama doole ak sama dignité ah nekk góornóor fii ci ndar ku mel ne alaaji Maalik ñëw taalal loxoom ñu ñàkku te man wax leen ne ñàkku leen nu bañ ba mu fas yéene guerre ak ñoom kon loolu ngor ak jom grand yàgg na fi comme li nga wax nag dafa am solo nag xam yow yaay kan dafa am solo xam loo doon dafa am solo fii mooy première capital la AOF képp koo làkk rek tubaab biir ñëwee fii la ñu fii la ñu jëkke muy benn ñaareel ba tur yi nga xam ne mooy Sénégal gaal gi xam nga ko moom la Guindérien Saint-Louisien Sénégal gaal gi mooy lan xam nga gaal gi mooy lan gaal gi mooy mooy sunu mooy sunu métier moom la ñuy nappe ci dégg nga wax bi kon kii itam ku fi juddoo yaroo fi màgge fi loo télé télé télé di nga mën mool maam di nga mën napp lu suñu cosaan bon waaw exactement booy xool bon danaan napp la mooy cosaanu gendar boo xëy na voilà boo xëy na tim bon beneen euh, fonction bu ñëw inséré wu si xam naa ñooñu ay étranger na ñuy nekk ñëw si si si dëkk bi toog fii ànd ak gars yi di exercer seen fonction ñii en même temps di exercer seen pêche comme fii ni ñu koy waxoon bon fii y a des ñoo xam ni à part la pêche ils s'adonnaient par exemple au commerce te ñooñu ñu ko doon def bon c'était pas c'était pas des Guendaréens de souche bon ay étrangers ñu dëkkoon si sous bon pas sous région bi sax mais si dans la région comme comme wàllo comme côté wàllo bi wàllo wàllo yu bëri noo installé woon ak Guet-Ndar ils au commerce commerce des fois bon ils s'adonnaient au transport des charrettes par exemple le wala exactement comme ni ko Ndiaye waxee amoon ay pirogues yo xam ne bon ils se rendaient jusqu'au Mali ñii di dem Fouta di wuti ay marchandises di ñëw bon di débarquer fii fii nu daan débarquer fi juste wala exactement ak tant de bon sunu suñu culture daal bon ni ma ko mën a wax moo gendar mooy loolu à part loolu tim bon y' a bon y' a les xam nga am na ay ay jeux yoo xam ne dañ koy organiser fii bon c' est annuel quoi. mooy Sénégal gendar rek moo fi am école bu góor ak bu jigéen xam nga loolu. école avant école mixte. dafa amoon école des filles ak école garçon c' était presque euh, généralisé woon nañ ko Sénégal même université mais nag gannaaw la ñu def école mixte. góor jigéen di bokk école mais ak Guenda dafa amoon une école euh, féminine pour école masculine yoo xam ne góor ñi nooy jàng fi jigéen ñi jàng fi amuloon bari na si dëkk yoo xam ne tey jii noo ngi ci Sénégal nu leen di tudd si wàllu pêche li ci ëpp wala ka génnal liggéeye foofu ka ko génne wala ka valoriser li yooyu c'est des Guendariens kayaar gi mag ña nekkoon dañ daan bay rek sunu mag ñi di topp tefes di napp ba gis loolu tefes teen la nu fay napp ñoom nuy ñëw nu leen di jox jën noom nuy jaay walla nu leen di jox jën nuy lekk nekk ay yenukat ba nu jël seen ay njaboot jox leen leen nu intégré leen jàngal leen napp mbuur sooy seet presque même chose le jolof jolof les euh, saalum saalum les noo foofu installé foofu nekk fa ay mareyeur ba finalement nekk fa ay mool Joal même chose kon dëkk bu nu dem man la wax di Nouadhibou Maroc ba Cap Skirring laa wax koo fa taseel muy pêcheur les Guinéens sont les meilleurs pêcheurs les plus braves encore même boo leen yóbboon si bateau yi sax nuy dem bateau ramasseur yi ñuy dem mënoo fa mënoo woon sax am ay ay ay ay membres yoo xam ne fii ay pêcheurs yoo xam ni dañuy fréquenter bateau ramasseur yi lu dul des Guindériens noo nangu coono boobu noo am xarañ boobu noo am muñ boobu noo am bravoure boobu noo am jàmbaar boobu jàmbaar nag comme tout tout pêcheur rek ay nit lañu ay nit yoo xam ne dañuy fauté dañuy juum dañoo ay manquement dañoo may haut dañoo may baa comme tout tout pêcheur nga dëkkal nii ah. am na benn naar bu na wax Mohamed Baye Pexe hmm. dafa wax ni maanaam Mauritanie pour moom ay nappkat d'origine il faut que yu góor yi ñu nit ñu gendariens hmm. takk seen ay jigéen am si ay doom bàyyi leen ko mu mën nekk ressource napp waaw waaw dem nga Côte d'Ivoire hmm. dem nga Togo hmm. Angola gis nga bi fa événement bi amee ministre dafa ñëwaat fi taxaw ni nag gars yi ñëw taxaw Abdou Diouf ni ne ministre bi taxaw ni que jox ma nappkatu Saint-Louis yi ma joxaale seen matériel ñu féetal ma Angola di ma liggéeyal li tax gars yi bañ ñu dem suñu culture di yàqu gendar lu fon culture la grand non xam nga gendar yàlla chance bi mu leen mooy moo di type de pêche yëpp type de pêche yëpp yëpp bu nit di wax mën nañ ko pratiquer causes yi embarqué nous avons yi beaucoup de matelots yoo xam ni ñu ngi si dañu nekk fi en retraite ah si bateau yi lañu embarqué woon di dem si matelots yi c'est des matelots di embarqué di naviguer ba retraité. Guet Ndar bon Guet Ndar c'est un quartier qui est en trois sous sous quartiers comme ni ko Moussa waxee léegi quoi y a Lodo mooy ñoom ñoo jëkk ñoom ngay jëkk jot bon Pon Xolé moo nekk au milieu y a Dak se trouve au fond quoi. mais ragaat yi tim cosaan la comme ni ko gars yi wax nun dañu fekk fi te tim bon nun fonk doon fonk boo xam ni bon moment bi bu jotee fu gars yi nekk dangay ñëw pour assister ko waaw mooy mooy lii mooy lii la is mooy ragaat yi mooy course pirogue yi. général de bi fu fi ñëwee moom la lu jëkk jo war rawante fii président Senghor moo ko fi andi woon waaye kon rek jàpp naa bi ñu première course bi tàllal bi ñëw taxaw deuxième course bi bi ñuy joow ñoom dañuy këpp gaal yi bu ñu ba pare dañ koy dipparñe waat aska jowaat keroog bi ñu këppee gaal yi général de Gaulle dafa jóg ne accident accident Senghor ni ko toogal lii du accident comme moo tax ma ne doomu mbott la nu ñun ñu asaar gaal yi mu set après joowaat wuri waat sa ifan dellusiwaat ñëw akkal ñu jël pee jël pee may delluwaat di indiwaat beneen anecdote maanaam ci Saint-Louis nga gëm ni lu ñu nekk seen dara la nekk tey jii boo fi toogoon ba timis jot di nga gis mille taalibe bi il bi si il bi la ñuy jógee soor wala yooyu fii la ñuy jël see añ amul benn kër gu nekk fi te benn bool bu muy tibbal ay taalibe pour ñu di ko añee si daara yi amul it daara bu fi nekk tamit te di internat nekk fi tam te gendar yoroloo ak ak yelleef di la jox añ di la jox reer moo tax diine islam gi sax fi di jolli comme làkkal sukóor yi te loolu kanam rek lay jëm naa si bi làq bi fi nga koy fekk xasida Sëriñ Tuubaa yi fi nga koy fekk ah laay ñi fi leen di fekk alaaj maa leen fekk Cheikh Saad bi tam fi nga koy fekk maanaam Cheikh Saad bi ni ñëwee wax na ni fii bépp doomu aadama bu fi juddoo fii màggee fi rek daxalal fil jannati te loolu ñun mën nan ka nangu ndax man kan kat nangu maanaam diine ji fi nekk sax fi daa iman abadan waaw ak ak di liggéey sunu ñaq te di ko joxe ndax ñun suñu yaay yee baax xam nga boo gisee Sénégal doon ñun ñu gën fi suñu yaay dañu baax te ku sa yaay baax gannaaw dangay baax ndax Sëriñ Tuubaa mi li mu rawe gaay yaay jaa baax de tudd na maam moo de soxna jaara la ñuy wax ndeyu Sëriñ Tuubaa ñun dana am yaay yu baax gannaaw kon ñun faaw nu baax ku ñu fas yéene delloo gannaaw yooyu yaay delloo gannaaw ñun ñooy numéro un Sénégal ba keroog ba keroog yàlla fal bu booba ba keroog yàlla jeexal àddina. pêche artisanale bi comme ni mu amee fii temps yooyu la euh, comment dire les les pirogues euh, pas motorisées gars yi bon par la pagaie la gars yi doon demee à destination par la page la gars yi doon demee par exemple d'une ville à une autre ah, wala ou bien d'une commune à une autre yooyu nag avec avec la page bi gars yi doon employé foofu la rek gars yi cosaanoo d'après di nga jaay voilà ndax bu dem bon di dem fii voilà. gars yi bon genre course la nekk daal foofu la affaire bi jógee ba bon regaat yi. ñëw sosoo ñëw doxee nii daal. grosso modo daal bon loolu laa mën a war a wax si bon si si question yi ma laaj problème mu culture guet ak ak cosaanu guet ak bon ak démb nu mu doon doxe waa Guet-Ndar. tey jii boo xoolee am na lu fi jot a am maanaam feetu indépendance 4 avril ñu doon wax panaal Guet-Ndar moo jëkk liggéey panaal bi mu nga liggéey gàllal liggéey ñu défilé ñu défilé ñu ba mujj quartier yi Saint-Louis yëpp commencé di am di am ay ay lu ñuy liggéey ay palais walla yooy di di ma maanaam def ko symbole di ko euh, di ko jëmbal gendar daal li ma la man jox bàkkam mooy ngor jëm ak fulla ak fayda loolu mooy bàkku gendar ngor jëm fulla ak fayda am diine am lislaam loolu mooy bàkku gendar du fi ma a jog nag daay man abadan te xoola ma xamale benn mbir de lépp lay wut Sénégal nga di ka ñaan sur senegal dugg xëloob bu mu mat kun bi bala nga yàlla nangu da ngay ñëw ndar billahi balaay mat da ngay ñëw fii fekkoon fi yàlla doogaa jóg kun boobu ngay ñaan nga doogaa dem. wala ku nekk Espagne mu seetaan émission Leral TV bi xam cosaanu réewam am information yu dëgër yoo xam ne ci dëkkam ci goxam ci quartier am la ko jëm bal ma rek damay citer benn exemple am na benn télévision étrangère boo xam ne dam koy doon seetaan muy def ay documentation si dëkkam par exemple ba ci Dakar ba ci Sénégal man en tant que Saint-Louisien en tant que sénégalais bare na bare na bare na bare lu ma maîtriser wala lu ma xam foofu ci Dakar à travers cette émission la ko xamee kon télévision de am importance surtout yéen ñi ngeen di wax nii xale yi nan dem góorgóorlu jàng maa ngi leen di woo si nan dem jàng nan dem cultiver wu bu baax